Bonsoir à tous et à tous, amis euh, très chers internautes. Ça me fait encore trop d'honneur de vous trouver ici euh, sur votre chaîne d'Aragne Info. bienvenue euh, encore dans cette émission interview. Interview aujourd'hui déroulera le tapis rouge à un artiste d'ailleurs qui est très connu et reconnu. Si je devais en tout cas utiliser un mot thermodynamique pour agacer votre curiosité, amis très chers internautes, je vous aurais dit, grâce à son talent démesuré et les rôles qu'il joue divinement bien, il est devenu une force motrice dans le milieu de la cinématographie. Amis très chers internautes, l'invité que j'ai sous la main aujourd'hui est un produit de l'école des beaux-arts de 1995 jusqu'à 1999. L'acteur de la troupe Alliance franco-sénégalaise de 1994 et 1995. En résumé, notre invité d'aujourd'hui évolue dans le monde de la cinématographie, en même temps de la filmographie, je vais vous donner des exemples qu'il a eu à tourner euh, en 2007, long métrage euh, Ramata, où il a interprété le rôle de Ngor Ndong. En même temps, euh, qu'il a fait en, 2018 au dur de Palakandji. En même temps, je vais maintenant s'intéresser au théâtre qu'il a eu à participer, Prince Laoube Penda, dans l'exil d'Albouri, et Lumuma, une saison au Congo. En même temps, il a eu aussi à participer jusqu'à la fin de la saison 2 euh, dans la série dénommée Porte et Marichou où il a interprété le rôle de baron. Amis très chers en même temps, comme c'est d'actualité, la série qui fait actuellement du bruit dans l'Anderno, je veux dire euh, la série euh, Niki Nank. En même temps aussi, juste après la série Niki Nank, il a eu aussi à faire une série pour faire une sensibilisation sur le corona, la COVID-19. Amis très chers ça me fait très plaisir de vous retrouver et d'être là sur ce plateau avec un artiste qui n'est plus un partout à présenter au niveau euh, de la cinématographie. vraiment Mbaye ziar. Euh, Ibrahim Bay donc di la dalal fi nga xamante ni moom euh, suñu chaîne Ndaragne Info de remercier aussi euh, d'avoir eu la simplicité d'accepter cette invitation donc wala may ñëw ci lenn rek dama ñëw ci tok présentation na xamna fi ko jot jaar yëpp macha c'est un long parcours et puis une présentation c'est assez kilométrique moo tax ma koy tënk léegi dama lay bàyyi donc en tant que ki nga xamante mooy Ibrahim Bay nga présenté wu à nos très chers internautes. waaw ma ngi leen di nuyu chers internautes féliciter cette initiative bi euh, une initiative euh, de jeunes une initiative euh, purement saint-louisienne donc une initiative sénégalaise une large vue dans dans dans le Sénégal et dans dans le continent africain et pourquoi pas dans le monde donc maa ngi leen di nuyu di leen euh, di leen wax ni am naa kontante ci dal ci jotaay bi waaw. Euh, am nga contentement nekk si jotaay bii nii ñu mën a commencé ni 25 ans de carrière déjà wala upp na ko sax euh, nga nekk koo xamante ni mën naa ni un acteur qui a blanchi sous le harnais maanaam obtenir obtenir nga si beaucoup de cette expérience loolu tey jii dama bëggoon xam est-ce que c'était une passion de prédilection voilà. waaw. Euh suma destin dessin suma destin la euh, passion bi il faut découvrir d'abord quelque chose comme beaucoup de choses dans la vie après une chose parmi tant de choses pour la ci après euh, la ci accroché après notre passion bi commencé di donc nous la ñu nous dañu ñëwoon ndar sommes nekk fi di au lycée euh, don def théâtre parallèlement à l'alliance franco-sénégalaise avec euh, Habib Kebé, ancien professeur euh, de lettres au lycée Ahmed Fall donc nous encadré pendant deux ans et nous participer à un festival festival interscolaire donc ce que la affaire fait. Nous avons décroché notre premier contrat euh, au cinéma euh, à l'issue d'une représentation donc avons eu une expérience à Popongine avec Moussa Sen Absa comme réalisateur donc ce la ñu avons ñun personnellement ni. Euh, yéeg nañ ni euh, am na daal lu xew ñu gëstu ba ñu xamal ni ñu ni yaayu école qui forme des acteurs ci la ñu dem inscrire ci école boobu def le concours d'entrée réussir ko nekk fa pendant quatre ans euh, pare ci daal di embrasser nag ce métier depuis lors ci lañ nekk waaw. donc est-ce que mën nañu jàpp ni ban moment nga toog nga ni man tey jii lii métier laa ko war a def nga bëgg trop trop. mooy exactement moment bi wax après avoir vécu euh, une première expérience théâtrale et que la chance nous a souri euh, ñu devons def tout de suite un film avec Moussa Sen c'est en ce moment précis là que la taxaw réfléchir avec mes 19 19 19 euh, ans à l'époque la taxaw réfléchir euh, ni man euh, dama koy donc instant Bob, je pense que c'était l'instant vraiment où j'avais décidé moi de suivre n'est-ce pas ce chemin tous les sacrifices quittés chez moi de jàngi à Dakar pendant 4 ans dès le soir de fille partager expérience bi ak euh, Saint-Louis mm, plus particulièrement avec Darou. Euh, ànd ci and ak ñom euh, jema partager expérience bobu ba yalla dimbali ñu ñu jël deux fois de suite phase nationale depuis lors après ñu embauché ma Sorano je suis devenu pensionnaire en 2000 ci la dello Dakar ba léegi maa ngi maa quoi. donc je pense da nga xaw anticiper sa question parce que wax nga Dakar légui wax nga Ndar en même temps euh, dama seetlu ni à l'état civil yaa ngi dëkk Dakar ban rapport nga am entre Ndar ak Dakar. waaw rapport bi ma am entre mm, Ndar ak Dakar moy ben su origine waalo la su origine waalo la suma ma pap euh, doon servir à Dakar euh ñu juddoo fa ñun. euh ñu juddoo fa euh, màggee fa suma papa dem ba jël retraite am ñëw ci këram gii ni moom mm, fii daal lay dund li nga xamante ni moo des ci dundam ñi mën a ànd ak moom ñëw ànd ak moom ñi nga xamante ni ils avaient autre chose à faire aussi ailleurs ñu dem continuer def loolu à partir de ce moment euh, Saint-Louis euh, est devenu pour man euh, un déclic Qui euh, suma destin ndax euh, lu bare ci suma destin fi le joué wo mu wat dem séti aduna dem euh suma yaay ngi fi sumay sœur ngi depuis je ne peux plus nak manam tay Saint-Louis mooy euh, mooy mooy suma kër mooy suma kër gu mag du dëgg donc euh, loolu moo nekk sama diggante digganteeg euh, Dakar ak Saint-Louis waaw. tey jii dama am impression sax dafa mel ni yaa ngi ba tey di tourner série ndax même caractère ngay garder da nga nekk koo xam dafa tas ci tourner ci même série yi loolu exactement lan la.

dafa loo xamante ni euh, en général dafay feeñ ci ñun pour mm, ñi nga xamante ni euh, ay artistes lañu yu engagé ay nit lañu yu woyof comme ay doomu aadama. comme yow sax déjà kay ñun ay doomu aadama lañu dañuy dañuy dañuy dañuy mais nag euh, bu ñu toogee war a wax ci sunu métier dañuy dañuy def benn benn benn. une mise en disposition boo xamante dañ koy installer ci ñun parce que parler de son métier c'est très sérieux surtout un métier boo xamante ni dañ ko xaw a jàppee euh, yi fi caaxaan man nag moo tax euh, bu may wax ci sama métier c'est comme euh, dama war a futteeku pour jouer pourquoi parce que dafa 10. métier bi ni mu diisee wax ci it noonu la diisee je te donne un exemple euh, dangay ngay da ngay toog ak tey imam bi nga xamante ni mooy jiite ci jumaa ji ngeen bokk koñ bi muy ànd ak yow di naanandoog yow ataaye di waxtaanandoog yow nga koy romb ak xale yi muy kaf di ree ba jot ñëpp ñëw toog mu génnee ci porte centrale bi di jëm ci mbinbar bi boko xolé xoolee di nga gis ni y a un décalage di nga gis ni y a quelque chose qui s'est ajouté au personnage bi nga dan rombu muy euh, Pa Djibi Guèye par exemple di kafa pourquoi parce que dafa am nak lenen lu muy représenter à partir de ce moment Tout dëgg waaw fofu bu fay motax motax da ci dinaa ci def mel yow buri wo wax tamit de waaw parce que ñun tamit dans notre métier euh, euh, dañu jàngal ci njëlbeen lu ñu lu ñu lu ñu nàmpal la tàggat ñu ci mooy euh, sunu noppi dafa war a ëpp dafa war a dafa war a dafa war a ëpp sunug wax euh, sunug seetlu daa war a ëpp sunu sunu commentaire walla ñuy discuter sunu déglu it dafa dafa nekk loo xamante dafa wara a ëpp fuuf lu ñuy déglu ñun ñun moment bi ñuy dégloo euh, moment boobu la préparer motax quand on est dans la vie dañuy déglu plus pour préparer wu ñun xam li àdduna di dund di leen déglu di leen seetlu ba bu ñu bëggee refléter cette même nature de la vie daf ñuy mën a yomb loolu kese la waaw. Euh, donc est ce que mën xam wala internet secret euh, la tax donc divinement bien da sa secret. Mm, métier bi du mm-hmm. du du de pendant 4 ans jangal nañ ñuko xam nañ yoon wi nañ ko du moment que xam nga tàggat nañ la ci nga xam ko xam yoon wi xam li muy laaj ci sacrifice nga pare pour génne ko donc dootul dootul nekk yi fi caaxaan donc loolu mooy secret bi ah. léegi nag li ci des liggéey la ko liggéey la. donc xam naa dafa am benn question bu bu si toppoon. Mhm. mais say biir wax dama si jàng ni damay tëb question boobu ñëw ci benn question pour fekk si la si sa si say argument. Ah. Euh, parce que dama dégg yaa ngi wax sànq ba léegi métier de fond da nga ciy kii yaa ngi aussi euh, focaliser si sa euh, formation bi nga def depuis 1995. Euh, bu ñu ci loolu actuellement série d'actualité c'est devenu comme une euh, monnaie courante euh, quelle appréciation faites-vous donc sur les séries sénégalaises actuellement nii. waaw damay wax ni sant yàlla ndax lu tax sant d'abord ñun Sénégal am na fu ñu tolloon foo xamante ni xawoon naa tiit trop ndax dañu daan bombarder ay séries yuy jógee fu kenn xamul di ñëw ba nga gis ñu commencé di ñu di ñu xaw formaté donc tay lolu xawna na wàññeeku bu baax donc lolu sant na ci yalla bu baax tay ñuy beaucoup de sénégalais ñu ngi consommer ay ay téléfilms sénégalais il y a beaucoup de chaînes yo xamanteni tay tey ñu ngi fi ay télé yo xamanteni ne ñu ngi fi di def promotion bi et puis nit ñang koy bëgg aussi donc lolu doyna sant yalla leneen li ci des nak moy ñun ñu xam rek.

wala ñu ñuy ñuy créer ay mimétisme yoo xamante ni euh, des na sax di xoolaat euh, ci sunu environnement bay gis euh, yenn yenn góor ak yenn jigéen si yoo xamante ni sax il s'identifie à certains personnages novelas wala nangam-nangam donc nañu moytu ñun dugg ci code yooyu nous avons nos codes culturels mën nañ ci inspiré wu euh, tout en restant moderne et proposer, n'est-ce pas, des produits aura typiquement sénégalais et que euh, des produits aura qui peuvent euh, être

du dëgg xam nga nit moom bu bu fekkee dafa ni moom nangam lii euh, lii la ci bëgg te jaral na ko nangam ak nangam ak nangam loolu xam nga man mënuma ci dara mais li am solo ba am solo mooy bu ñuy wax ci métier bi rek métier bi moom dëggantaan fi mu taxaw fa la taxaw ba léegi siiw taxu koo jub leneen taxu koo jub métier bi c'est un comme tous les autres métiers du dëgg donc képp koo xamante ni yaa ngi xëy euh, ubbi sa atelier menuiserie euh, wala atelier mécanique wala lu mënti doon liggéey moo la tax a jóg bëgg nga liggéey boobu it mu prospère bëgg nga ci it euh, di ci gis sa bopp bëgg nga ci it ñu la ciy dégg waaye c'est pas l'objectif tout de suite fixé pour ñu dégg la ci pour ñu dégg la ci loolu yow ci yow lay des yow sa liggéey donc c'est pas quelque chose qu'on cherche da ngay liggéey ba dégg la ci donc loolu la hum, il a il va de soi aussi pour euh, pour ce métier là donc jug rek ni dama bëgg ñu dégg ma ci euh, yaakaar naa doo sore waaye nag boo jugee ngir métier bi xëy na mën nga dem toog ba benn instant yàlla dogal sa njàmbaar ak sa xereñ ak sa sacrifice yi nga def yëpp xëy na le bu soobee yàlla moom mën la cee may li wut quoi voilà. donc machallah kaddu kàddu leer euh, def nga ci li nga xamanteni def nga théâtre def nga série ta actuellement ñom ñaar dana xaw une am une ressemblance confondante est-ce que donc en quelques secondes de façon très bref mën nga joxoo seen seen différence lan mo ci différence entre série ak euh, théâtre wa théâtre dafa am ay ay réglam waaw ak ay conventions euh cinéma également am ay réglam ak ay conventions du deug le théâtre se joue dans une salle wala ci espace buñu tuddé scène waaw et que euh, ñi koy sétane dañuy tok ñi koy jouer taxaw ni ñu leen di xol mëna à la fin de la représentation juk nuyu leen du deug contrairement à à au nu mu à l'audiovisuel audiovisuel c'est quelque chose boo xamante de nous lu bare bare bare ce c'est pas tout de suite On koy préparer bu ñu reprendre du bu baaxee ñu nous ci bu ñu paree ci loolu koy ko bon ko ba mu ba mu écran yow donc cependant boy toog di euh, un produit audiovisuel ngay sétane nekkatoo au théâtre alors donc non la mel lolou nak ay métier la du luñu mëna mën a wax fii euh, mën nañ rek junj nonu ni différence baa nonu mais nak euh, li ci bir bo démé ci théâtre comme limako waxé dafa am ay euh fa lañ lay jàngalé les règles du théâtre bo jugee fofu nga ñëw ci cinéma aussi ñu jàngal le son lumière caméra jeu du dëgg ainsi de suite quoi non la quoi. donc xam ni bi neex mais comme certains du la de trop dañuy dugg ci euh, série rek que série xam récent euh, Pod Marichou gis nañ nga à partir de la fin de la saison 2 euh, nga ñëw nekk ci interpréter rôle le baron ba si troisième saison bi affaire de franc mu d'actualité aussi ban message nga lancer mu ngi expliquer waaw loolu ci trop.

ñu ñëw si série Ndinki Nanka bi nga xamante ni aussi c'est d'actualité mm. euh, gars yi ñu ngi ko commencé euh, seetaan mu nekk série boo xamante ni euh, si donc biir nañ ko bien mu nekk lu enrichissant aussi ñëpp mën si jëriñu daanaka sa boo xoolee am na cosaan ce que mën nga expliquer série boobu dañ seetlu ni benn genre roman la bu Assoum Benga bind naka la demee ba gars yi mettre en scène bi nga ñu def ko série série série waaw waaw comme toute œuvre rek écrite tey mën nga mën nga jóge ci un roman léegi nga adapté au cinéma se def un scénario après mu accroché public bi du dëgg donc qui euh c'est c'est c'est une grande dame de la littérature sénégalaise Sorna Benga euh amna sax ay ay événements yum daan def ci El euh waaw ndax euh, artiste la artiste la ñu koy ñu koy jaajëfal bu baax muy ku baax it euh, mo jël roman adapté ko def ko scénario donc euh, wa Canal gis ko ñu apprécier ko après ñu ñu jall ci parce que originalité bi euh, on est dans dans un temps moderne et on est dans une légende purement africaine du deug donc dualité bobo, moi pour moi la force de cette œuvre là donc nous, dans toutes nos cultures euh, même si le, Ninkindanka hmm, euh, ressort un peu du manding mais nous sommes ci culture africaine yi ku dem approximativement nous avons ni euh, dana ak cette légende n'est-ce pas ninkinanka du deug ay xar Afrique la yo xamanteni euh, c'est des gens euh, bien avant même euh, l'avènement des religions des forces naturelles qui étaient là et que maintenant, dans ont sacrifice pour établir l'équilibre social l'équilibre des sociétés et pour protéger également sen ay donc l'ol la en fait quoi donc xam naa ni série boobu ni ngi nak nekk na série boo xamante neex na lool mais aussi dafa xaw a naqadee comprendre si histoire jaare yi naka la deme tey seenu parfois nit ki da koy jaral mu daggal loxo kenn ki pour récupérer jaare bi et xam naa ci naka noonu damay jéem a wax au niveau de la régie ñu wane séquence boobu nga xamante ni xëy na Ibrahima tudd dagg na nu loxo bi pour récupérer benn jaaro après nga ñëw si nga expliquer affaire jaare léegi boobu noo ko noo ko gisee comme ni ko tegee bu ñu teg euh, mooy li ma la wax rek xam nga légende la cette bague yi ñi ko ñi ko takk ñoom euh, dañ leen tànn boo demee ci culture bu nekk am na ñoo xamante ni ñu nga ca ñu nga ca biir ci bi jamono dëgg dëgg dëgg di dund africanité laa wax de ñi ngi ci biir ñu tànn leen am lu ñu leen sas sas boobu ñu leen sas moo xam jaar lu ñu leen jox moo xam lu mënti doon loo xam ne mag ñi xam nañ ko parce que dafa am lu ñu gis ci ñoom du dëgg que ñoom xamaguñ ko bu nu màggee nag mën a exercer loolu léegi nag le fait que ñu solo leen jaaro boobu mooy signe bi nga xamante ni mooy le signe fort mën na nekk jaaro mën na nekk petaaw mën na nekk leneen selon la culture rek mën na nekk leneen loo xamante ni dañ koy denc sax ba nga toll ci yenn at yi ñu jox la ko donc jaaro yu loolu la maintenant il y a une mooy le diamant bleu du dëgg léegi loolu la loolu nag mooy euh, li nga xamante ni symboliquement tey mooy li mu mën a tuddee euh, yenn richesse yu baare yu nekk ci sous-sol africain bi et que bu ko saay-saay teeloon a gis avant ñuy am indépendance kon xëy na duñu fi jóge wala buñ ko teeloon a gis après les juste après les indépendances kon xëy na heure bii kenn waxatu ko mais li tax yàlla bàyyi ko foofu mu nekk en veilleuse ñu defoon ay euh, ay euh, ay euh, ay recherche mu leen di xeeñ mais gisuñu ko ba yàlla dogal ñu toll ba benn instant mu daal di bët ñëw loolu nag affaire la donc waaw loolu la. waaw loolu la rek noonu la rek mooy jaaro yeeg yooyu mooy jamaa bleu beeg. am na ay xiisa yu bari yeneen yoo xamante ni sax dans l'histoire da nga koy da koy gis quoi donc euh, da ngeen di dëkk ci koñ wala ngeen nekk euh, juróomi euh, waxambaane ci biir kër seen nijaay yar leen yor xam-xam jur yeneen doom pour pourquoi mu jaaro bi muy takk mu xëy suba xool kenn ci jarbaat yi mu takkal ko ko ah c'est parce que lolu mom moo ke xam du deug et que fondamentalement bu fa jugee euh, am lo xamanteni kuko ni bëggoon ci goor gi bo demul ci ki yor jaar bi do ko am lolu rek la lolu rek la. donc damay ba mënon nako jox kenen ah. pardon mënon nako jox kenen ko xamanteni xeyna du ko non seul mën nako atane sax après da koy jaay da koy brader wala mu jël xam-xam bobu di ci di ci def lu bon du deug mais nag set leen seetantal leen natt leen ba xam ni kii ko mérité même bu fekkente ni c'est pas euh, kooku la gën a bëgg ci xolam mais il est obligé mu jox ko kooku parce que kooku moo mën a pérenniser loolu te jàmm am donc kooku la koy jox donc jaaro yu noonu rek la demee en quelque sorte quoi de manière symbolique waaw. Euh, donc seetlu nañu aussi euh, ci ci biir série bi rôle bi nga xam ne moo ngi incarné. Euh, dañu gis ni da ngay bu bu gars tijjee donc euh, lors de kii lors de ninki nànk automatiquement da nga koy da nga koy sentir est-ce que c'est quelque chose boo xam ki inhérent donc yow sa personne ak ak l'ordre ninki nank exactement la moo expliqué loolu xëy na dañuy dem régie ñu dem euh, xool image boobu noonu suñu desaate pour internet bu gën a mën a comprendre Nous devons réunir les bagues restantes avant ce voyou. Et il a déjà une longueur d'avance sur nous. près de Ninkinanka vient d'être réouvert. waaw lii mooy image bu ñu teg bu ñu laalee jaar bi nga quelqu'un qui a a ouvert euh, loolu di Ninkinanka. waaw parce que moi, li ma la wax rek gis nga euh, par exemple je reviens à l'exemple de tout à l'heure bi ma la jox ngeen nekk ci kër gi góor gi jugee na fi seet na kenn ci jarbaat yi jox ko jaaro bi. kon rôle bu incarné quoi yow. non non non non.

Euh, Nonu la Benga construire c'est le gardien n'est-ce pas de de de de du coffret du c'est le gardien du coffret coffret bi nga xamante ni Bagasbi, euh, def bagage il est connecté à ce coffret là au prix bi nga xamante ni nag mooy euh, mi à ce coffret là Euh, du mën a. Euh, amul wala. waaw mi ngi noonu. Mm, ku mu bëgg a sëyal rek day kii. day day xaw a kii quoi. du am benn benn benn sentiment du am amul du am dara quoi. dina am sentiment. Euh. dina bëgg ak yëpp mais day yàqu. day yàqu quoi yàqu parce ah, que. waaw parce que looloo tax quoi. looloo tax waaw. donc dañuy kii tuuti. ba tey pour pour pour pour pour génn si sëriñ nekk ndànk donc dañuy ñëw ci par exemple actualité muy muy muy pandémie bi parce que bu matu atam fi Sénégal li mu jëyee ko ñu gis ni da nga def ben court métrage bi nga xamanteni ni da nga si rendre hommage au personnel euh, de la santé pour la lutte contre la pandémie lolu tay ji ban inspiration lo ak lu si jublu woon. waaw moy li nga xamanteni rek en tant que patriote du deug ñu nek ci dëkk bi bu bu ñëpp dee xex bu amé ben menace euh, bo xamanteni ni dafa dugg si ci dëkk bi ku ci nek ci sa wàll nga xol no ci jógee nga xex ko donc ñun nag euh, on a été sollicité très tôt euh, pour ñu jël sunuy matuwaay euh, ci la produire euh, avec l'équipe bima ci jappalé ci la produire le court métrage là pour pour sensibiliser nit ñi wax lan ni amna et que nañu nañu moytu quoi ah loolu yeneen yi nga xamante nag mooy suma projet personnel mooy franchement am suma école bopp boo xamante ni euh, euh, dinaa mën a dajale ñi nga xamante ni am naa yaakaar ni bëgg nañ ko ma mën a partager ak ñoom euh, li yàlla def ci man ak li mag ñi def ci man waaw. xam naa thème nga ni journaliste bi dafa mën a laaj quoi mais sa école bopp da nga koy xaar seen louis wala da koy xaar Dakar. waaw fu man euh, euh, Dakar par exemple envisagé wu ma fa euh, lu bare Dakar euh, envisagé wu ma fa lu bare mais feneen fu mu mënti doon rek fu ko yàlla tudd rek baax na incha donc avant sama dernière question avant ce mot de la fin est-ce que Bathie wala Ibrahima Mbaye en dehors de série yi muy def. yu muy joué am na leen beneen occupation bu dul série yi. man de bu weesoo lii may def nii li may bëgg a tudd sax daf dafa ànd ak moom ba pare mooy euh, sport. sportif. sport daal mooy sama mooy sama te euh, liggéey métier d'acteur moom euh, dafa lié trop ak un sport nag un sport boo xamante ni qui n'est pas qui est un peu particulier parce que du sportu doole mais sportu xol la ak souplesse.

tout est possible waaw foo ci bëgg àgg mën nga ko ci àgg waaw c'est pas je pense que ndar rek bu ñu ko waxee ndar rek ndar buñ ko waxee rek ak xew-xew yi fi am yëpp ak ñi fi jaar ñëpp ak tey li fi li fi dund ba léegi ak énergie bi fi nekk mm, yéen a ngi koy yëg je sais que yéen koy yëg chaque jour donc ku am foo limiter sa bopp rek euh, pour man na nga jàpp ni en tant que jeune. mën nga sax gën a mën nga sax gën a romb foofu c' est très possible waaw. donc waroon waxaat sa mais la fàttali mooy est ce que am nga koy koy ko sa idole ci ci ci série wala dara koy siwur quoi. Euh, non man man ci ci ci ci ci ñi ma daan suivre véritablement tey am na am na ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi fi ma leen di seetaan euh, may gis ci ñoom euh, franchement. talent bu bu bu bu bu wér. comme boo xam non du ma tudd tur. Ah. du ma tudd tur ay jeunes lañu ñoom xam nañu man xam naa. Ah. dégg nga euh, ñoom xam nañu man xam naa damay nekk ak ñoom damay déggante ak ñoom damay weccook ñoom euh, buñ ma soxlaa dañ damay damay disponible parce que ils en veulent comprendre nga ñu bëgg lañu buñ ko buñ ma déggee rek dinañ xam ni ñoom laay waxal.